saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa cercle des VIP ba sunu lamb désigné fekk fa diggante Gaston Gris Bordeaux fekk fa diggante Lac de Guiers 2 ak Gris Bordeaux bu ñu dooreek cercle des VIP dañuy fekk sunu lamb lim juróom-ñetti mbër G8 de la sunu lamb xëy fësal fësal mbër ca bokk groupe 8 mbër yooyee mën nañ caa jàpp Modou Lo Ama Baldé Balla Gaye 2 Reug-Reug B52 Bombardier Gris Bordeaux Lac de ak Tapha la yéeme foofee nag ñett yam ca teg dafa ne giri menacé B52 éjecté rëg-rëg frappe à la porte mu toftalaat ci yeneen ñetti mbër ne la de de Eumeu Sène Tapha Tine joue place ñetti mbër yi dañuy jouer seen place ngir mën bokk ci g bi G8 boobee Bombardier mooy génn rëg-rëg dugg li waral Bombardier di génn mooy mu ngi ci 44 benn année ko dese mu génn groupe ba rëg-rëg a nga ca bund ba di fëgg di yëngal yàgg-yàgg day dugg bu dee Balla Gaye de guerre Gris Bordeaux bile combat am na promoteur bu ko bëgg moo nga cay dox Lamine Samba la jiital ci négociation ya moom Lamine Samba borom jongante bu TFM gisee na ak Lac de ñu waxtaan bu juboo niki démb ci guddi la waroon a gisante Gris Bordeaux ñu waxtaan ténk bile diggante combat ba taxaw moo gën a yomb combat ba yàqu la gënoon jafe dépassé nañ ko mooy Lac de bëgg naa bëre Gris Gris bëgg naa bëre Lac de leneen la ca des mooy ñu négocier ba yelloo boobee ba léegi Gaston Mbengue laalut mbuum moo waral mu xaatima plainte jébbal ko Gris Bordeaux l'observateur moo fësal li ni mel xam le ne Gaston Mbengue ak Gris Bordeaux seen coow la ca loxo yoon la nar a mujje bu ñu jàllee ci Abbas Nooy président écurie moom ñëw na ci ni mu gën a yaatoo ci diggante Gaston Mbengue ak Gris boo yëree sunu làmb da fekk Abbas Nooy mu wax ci lu yaatoo yaatoo yaatu lañ ca mën a jàpp mooy kàddoom ya muy wax ne Gaston Mbengue c'est Bordeaux loolu Abbas ñëw na ci bu ñu jàllee ci écurie bàyyi si xel seen bilan 2019 2020 leen di fekk ñu def deux victoires deux défaites bi la écurie quatre combats la def saa njàmbur moo daan bébé bu bawal amaat beneen combat digganteem ak lébu ndooy daan ko seen ñaari défaites yi laay biris li bu daare ci kër mbay fall moo daan tukkal aatu bu papakan moo daan gànna séras 2 bu dee seen leader ba Modou Faye année blanche la def ba ñu laajee coach suba Cheikh na ci moom saison mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci étu yéenekaay bi ñu leen jox allah